TV bi nga xamante ne ni li mu am ci ay éléments bëri na lool ñoom ñee nag ñuy wax ni dañoo violer seeni ay droits de défense. woo nañ dossier bi tey bi ñu woowee dossier bi avocat day Xadi yi jóg juróom-ñeent lañ mais juróom-benn yi ñoom ñu ngi door a ñëw ci dossier bi bi coow li tàmbalee am na léegi ñaari at nekkuñ ci woon juróom-benn yi kon xamuñ dossier bi te booy layool nit il faut nga xam li nga koy layoon lan la pour xam loola il faut nga jot kayit yi jot lépp lu bokk ci dossier bi nga càmbar ko gëstu ko waxtaan si ak sa cliente. avocat wu Ndeye Khady bi itamit daal di def ni seen collègue yi di avocat wu Ousmane Sonko yi ñoom ñee itamit daal di génn salle bi procès bi nag mu ngi wëyandi ginnaaw ni sax défense bi nekk ñu fa. malgré li ñu wone ne ñun ñëpp ñu ngi doon a ñëw ci dossier bi ñun juróom-benn yi chambre criminelle bi bañ moom. du ko dàq ek daf koy atte tey ñu jàpp ne kon suñu sañ-sañ suñu àq suñu yelleef ak bu suñu cliente mu di Ndeye Khady Ndiaye ci mun pour ñu mun ko layool layoo bu mucc ayib tribunal bi muy chambre criminelle bi daf ko salfaañe ñun nag ay avocat lañ bu chambre criminelle salfaañe li yoon maye ñun avocat duñu toog foofa di ko dëggal ñoom ñee nag di ñu xamal ni raxas nañ seen loxo ci bile procès te décision bi nga xamante ne nii génnee nañ ko fa du doon lu crédible ci seeni ay bët.